jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu leen siyaar di leen bëggee fi leen daan bëggee di ñëw ak ci émission bi nga xamante ni nii mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel dem ci làmb su ma nee jàmmaarloo xel dem ci jëflante su ma nee jàmmaarloo dem ci wasaare làmb tey nag ñu ñëw fii ci émission boo xamante ni nii comme li mu leen ko waxee woon rek du ay mbër mais ñi nga xamante nii dañuy jege mbër yi tey nag ma ñëw ak yéen ci ñi nga xamante ni mooy combat bi nga xamante ni nii combat bi nga xamante ni gars yi waajoon nañ ko ba ci bañ ne suba la corona bi ñëw jëlee ko fi su ma xel su ma waxee loolu xel yi dina dem ci Sokh Gamou Gueye mu nekkoon làmb joo xamante ni ñëpp doon nañ ko xaar nekkoon làmb joo xamante ni nii nit ñi doon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax waaye jàmm ak pexem yàlla ak dogalam corona bi ñëw na jëlee fi yi nga xamante ni mooy làmb ji waaye nag gannaaw làmb ji amul tey nag dama fi dalal ñaar ñi nga xamante ni nii ku ci nekk mën naa ne kii Gamou Gueye fi toog mën naa wax fii Sokh fi toog ndax ñi fi toog tey jege nañ mbëy jege ga nga xamante ne nii defe naa ne bu ñu waxee mën naa ne mbëyee wax moo tax tey nag ñu dalal leen fi pour bëgg a waxtaan ak ñoom ci làmb ji waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni nii moo fi jot a xew maa ngi nuyu bàyyi ji xam naa ne dafa dañ kumpa waaye maa ngi ko bu baax a baax maa ngi lay nuyu Badou. waaye Diop maa lay siyaar baax a baax waa am sant yàlla bu baax. suul suy siyaar naa la. xam nga suul bëggëj wala suul lan la. <laughs> suul bëggëj. suul bëggëj. delloo siyaar Ousseyn. Uh-huh. nekk si jàmm. sant bu baax. tey tey tey ñu ñëwoon pour bëgg waxtaanee li nga xamante ne mooy làmb ji ku ne xam na ne làmb ji amul mais jot ngeen ko waaj ba ne suba la corona bi ñëw ñëw yàq lépp corona bi ñëw yàq lépp nu leen gisee boobu préparation làmb jooju. waaw Iso maa ngi sant yàlla bu baax ginnaaw ma sant yàlla. Mhm. julli si yonent bi mhm. maa ngi maa ngi nuyu sama bu baax. di nuyu dëkk yi nga xam ne fa laa jóge mhm. di <laughs> lañ ko ay suul ay ah, euh, dëgg yàlla lii. dafay mhm. yokk làmb. Mhm. la lii lii lii parce que parce que boo mosaan gis. boo musaan dem stade da ngay gis dañ naan supporter bi na toogee ne fii na toogee nii waaye ku ne xam na ne lii nii Wassare Lamb doo nga ko mën a am. non kenn du yéen. te mhm. lii dafa dafa am solo quoi. Mhm. day permettre bu ñu bëree ba làmb jeex rek. xamante xamante mhm. parce que dafay jeex quoi ñu ci groupe WhatsApp nekk dafaa di balagante di toñante di waxtaan ci nekk sa morom doo loo doo sentir dëgg la waaw noonu la quoi la bu jeexee jeex na quoi man damaa commencé ñàkk sax te image émission bi commencé wul non waaye dama ko may dama ko may dara moom dafa mel ni ku liw sax fi mu toll nii man maa ngi ñàkk fi mu toll nii mais moom daa mel ni ku liw mais coronavirus bi moo ko fi bàyyi. sens. dama ko doon fekk foofu mu nekk du ma ko daan. gis nga sox nu toll. waaw mais euh, xam nga gars yi gàmmu wax ci bari na quoi gàmm nangam nangam gàmm mu ñoo gis mu dellu ginnaaw. moom mais sox laa la wax de sox sox laa la wax de ko doon fekk du ko daan. <laughs> ah loolu de mosoo gëmoo gis bi Arène Nationale tijjee ba léegi ñu fekk ba Pikine ah xanaa def nañ ko moo ko soq li. non foofu laa ko doon fekk du ma ko daan. te nag dama laaj soq ma ne ko damaa gis yéen waa Pikine yi ngeen soo xale yi xale yi lébu yi mu ne ma loolu moo am ci làmb mais yéen def ngeen premier bi daan deuxième bee desoon waaye kon naa kii suul dégg nga neen da lay fekk bi Pikine duma la daan la est-ce que loolu dina yomb. wax bu yàqu la rek. <laughs> xam man nit ma nuyoo. waaw ci bisimilah comme moom nu mu ko waxee rek ginnaaw bi ñu sant yàlla junni si yéen bi. Mm-hmm. di sant suñuy ñaari waajur di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na gënal fu mu jugee. suñu borom yërëm ko seede ko si ay yërmandeem ci barki Seydina Muhammad di ñaanal sama yaay bu baax mhm. suñu borom may ko xoolu muñ gudd fan wér tara fekkee ñaanal bépp doomu ginnaaw raay bépp doomu pikin waaw comme ça waaye nu mu ko waxee rek mhm. amaana ñun mooy loolu ragaluñu loolu ñun comme d'habitude rek gars yi defoon nañ ba bañ ne suba la làmb ji làmb mais nu ngeen nu ngeen nu ngeen dundee préparation ba parce que gis nañ bii ngeen jënd gis ngeen li ngeen ko waajee mais ñëw bañ a suba làmb ji yàqu ma ma gis na soq ni mu waxee xawoon na ko am lu ci mais du coobareem. dëgg la préparation bi dafa metti woon trop. Mhm. nekkoon si ay kuti kuti guddeeg bëccëg tooguñu benn yoon soo seetloo si ma xool open press bi mu ngi leen di wax moom dawul sax coronavirus. ok gars yi foofu lañ juumee ñu ko waroon bàyyi mu dem bëri làmb ji. non lamb làmb ñu ñu ko ba parce que état bi moo ne bu benn yëngu-yëngu am looloo tax làmb ji mujjut a am. man damaa gis jour boobu noonu làmb amoon na si samedi bi. waaw samedi bi bébé jën la ak ak ak fourrière. làmb jooju sax xanaa xaw tuuti ñu arrêté ko. Mhm. waaw mais noonu la demee mais est-ce que ba Gamou Gueye jaroon na ngeen def ci loolu noonu lépp. waaw làmb la rek lu mu laaj rek lu mu laaj rek waaw bëre Gamou Gueye bëre keneen a si yem. non est nekkul tamit li ngeen bëgg doomu daangu mu dóor leen ngeen daanu ngeen war a duggaat biir tëngéej doomu daangu war a andiwaat kii di gàmmu gi est-ce que looloo tax ngeen def ci waaja waajaay bi metti man ne lu ma gis duggaat biir tëngéej loolu lu feere hmm. sama gis gi loolu lu hmm. Hmm. soo ko dugg na géej waaye dugg fa duggaat fa mais bi ngeen duggee tëngéej da ngeen faa am defet waaw delluwaat encore mais duggoon nañ te ki ngeen jël ki ngeen jël victoire ku ngeen fa daan Youssou Ndour bu lébu gi ok soo ko daan jëlu bu rëy waaw dafa sedd de. non saa yi mooy lu baax saa yi dafa xaw a tuy quoi. dafa xaw a. dafa xaw a tuy quoi baax daa ndóog mbërëm. non si waxoon dëgg nag loolu mi nga xam ne mooy duggoon na Pikine di bëre ak Youssou Ndour. Youssou Ndour waaw euh, bokk na si mbëri daax bëri tëngëj. mu daan ko quoi mais loolu man pour man sarax la woon quoi sarax la ko woon. Youssou Ndour parce que boobu dafa fekkoon Youssou Ndour blessé. combat bi naroon am sax yàlla xam na ko. non mais est ce que nekkul ñu mu ko daan tax ngeen nekk. non dafa fekkoon Youssou Ndour blessé. ñu ah. après mooy la ko ñu bàyyi ko mu bëri moo tax gis nga bi mu dugal tëngëj dañ koo duma ba mu tëddal boppam koro sox bu ma ko dóoree ba nga la ñuy wax dama ko yi ñooy doon seetaan n'est-ce pas. ba pare mu duggaat nag mu duggaat a mais nee na loolu loolu lu weyoon jaadu la rek moom na dafa woon ñëw ak appliqué dem yoonam xam nga tey jii bisu defet du bisu ndam. Mhm. seetaan nga làmb ji bu baax gis nga sox ak gàmmu gay dañoo bagaar. Mhm. doo seetaane am na sox fu mu koy dóoree ba nekkatul si làmb ji sax xam nga ne ku war a daanu. Mhm. munoo si dara sook kaaw na gàmmu gay mais sook la moo tax bu ñëwee di xeeb adversaire yi du leen du leen nawloo lu tax loolu. non xeebul adversaire de. non sook day ñëw communication bu bëri du jox cër ki muy bëri lu tax loolu. noo de ah. ah na yow xam nga seetaan nga combat sook yi. dafa non ga non sook dafa ñemewul bi parce que dóor mu dóor doomu daangu doomu daangu doomu daangu résisté. ko moom la moom la ko doomu daangu dóor mu kaaw. mais ñoom ñaar bi ñu xeexee est-ce que kaawu amul ci ñoom ñaar ñëpp. non benn xam ne nii moom moo joxoon làmb ci sax quoi. Mhm. parce que gis nañu mu attaqué waa ji dóor ko ay. ay coups yu dal waaw mais xam nga ay booy tënkee lañ quoi ñun tàppatuñu loolu. après soo dafa am dafa affronté te pourtant li ma dóor moom daa ko dóor mu mun a las. tàppatuñu loolu suñu yëf la. waaw loolu moom <laughs> keneen sa yëf bopp waaye. <laughs> mais est ce que bu bu arbitre sifflé gàmmu gi suul ay tànkam est ce que di nga xeex ak gàmmu gi. lu mu laaj dañ koy def. non du xeex bëre ak dóor lañ wax. non gàmmu gi laa la wax de waxuma lu mu laaj de gàmmu gi laa. gàmmu gi si jëm boppam bëre ak dóor lañ def. damaa gis boo yu fi boo yu fi dëkk gàmmu gay mais bu làmb ji jotee ñu ñëwee dañoo delloo avance bari na ci duma leen lim. <laughs> non limal nag mu neex. qualifié <laughs> <laughs> moo qualifié ah ñooñ dama wax si ñoom. ndax lu ma ñor mooy soq. gàmmu non moom laa la wax dama ne la yéen ñaar presque mën naa ne làmb la. Mhm. mais est-ce que bu gàmmu gay doxee sa kaw di nga taxaw résister ko. bañ a lu ñuy teree taxaw. gàmmu gay saf na de. su làmb ji ànd woon ngay xam lépp dëgg la. su làmb ji entouré ngay xam lépp dëgg la tey jii lu ñuy gënal sax ñu géwal leen. ñu géwal non loolu moom. du fi amee moom du fi amee il faut ñu bàyyi ba ba corona jàll ñu wala euh, national duy stade ba mu fees toog seetaan leen. waaw lépp mun na nekk tamit mais yàgg na trop. yàgg na instant bi waroon na fekk ñu nekk si leneen. mais bi combat bi bi combat bi yàqoog léegi. Mhm. entraînement yi est-ce que moo ngi continuer di comme nam meloon. tey la gën a métti entraînement yi tey la gën a métti. toogul benn yoon ndax moom dafa xam lu ko war te tamit am ñu nekk si ginnaawam am ñu yaakaar si moom te à chaque fois dañ ko koy wax. Mhm, mu koy dégg. nu ngeen nu ngeen waajee làmb yi euh, comme ni nga ko waxee rek bu fekkee coono. Mhm. mooy tax nit am nit am victoire. Mhm. gàmm gooy bi du ko ñàkk. <laughs> parce que gàmm bi combat bi maanaam dafa teel dugg quoi combat boo xoolee attaque nii ñu taxawee léegi at. parce que tabaski daaw la woon. tabaski daaw ba léegi bi ñu dem refan rek boo fekkee ne lamb yi taxaw. moom nga xam mbërëm rek xam nga soxu nag. bañ a xam sa xam nga soxu nag. ñun soxu ñun xamoon nañu dañuy bëri ak moom. parce que xamoon ngeen da ngeen bëri ak moom ko parce que suñu combat ak moom bi ñu ko dalee wax maam du démb du barki démb quoi yàgg na quoi. kon ci moom la yàggee. non ñoo débuté ndoo ma ak moom. ok mais dañ doon xaar ñor rek quoi mais xamoon nañ dañuy bëri ak moom waaw man nag am na benn affaire bu ma xaw a neex ci moom quoi muy lan mooy fexe na moom góorgóorlu na quoi loolu nag du du lu moom mais góorgóorlu na maanaam ba boo nee boo nee Eumeu Sène ne Ama Baldé ne Boy Niang tudd sax quoi loolu nag moom du du du du lu mu prouvé sax quoi. du lu mu prouvé ku am 16 combats looloo xaw a neex quoi. waaw xam moom dafa moom. ku am 16 combats nga ne du lu mu prouvé. non non moom moom soowu man la quoi xam moom dafa mën a soow. Eh. wax dafa mën a xañ moom xañu man la. boo ko déggee bu waxee rek. yow xam nga xañu man la kon nangam nangam moom soowu man la. <laughs> billaay dama koy duma dama koy duma daan ko. du gàmmu gee bii ma gis mooy duma soq de. non moom moom déggu xañu man la su méttee day bàyyi xamee kon kuy bàyyi. mais combat combat ko xool su méttee day lase. ban combat soxla gis mu metti mu bàyyi. mu bàyyi. li ma moom. moom doomu daan ak ban. ak ban combat am ak kii combat am ak euh, Ramdan. combat am Ramdan non ñu combat bu dafa. combat ak Ramdan ñaata minute lañ bëree. ñaata minute la soog a bëree. moom ni mu toll noonu. loolu waaw waaw bi melul noonu quoi moom bëri bu yàgg mënu ko. yow uniquement yow mos nga seetaan làmb soog gis nga mu dellu ginnaaw. non dina dellu ginnaaw si gàmmu gi. loolu nga foog. bi su ma ko jubee mu dellu ginnaaw. yaa ngi nax nag sa bopp. su ma ko jubee mu dellu gi da ngaa ne Sokh day bàyyi Sokh man la. moo tax ma lay confirmer loolu. Sokh man boo xoolee combat bi ki mu mujjee daan Sokh avant euh, la mujjee bëre. Nandi Fall waaw la mujjee bëre. Nandi Fall moom koroog Sokh gis combat moom Pambaay combat dafa sóob ba génn ci combat boobu mooy loolu. sóob bu demee nan. combat dafa sóob. Sokh tenir Pambaay.

Gamou Gueye Pape Ndoye. non ñuy bëri di xeex di bëri di xeex. Gamou amul luy ragal. ko ndigal lu ko daan lan moo tax moo tax lan moo tax. Eh. bëgg xeex lan moo tax Gamou Gueye combat am nangoo yomb. doomu lebu la ñun dañ xeex loolu maam la bokk. dañuy xeex soo ko ndigal lan moo ko daan soo ko ndigal lan moo ko daan. nga làmb ju neex ba mu koy zongale. Ah, non combat neex na bàyyi li nga wax. bàyyi li nga wax si gàttal si biir Pikine laa koy fekk maanaam bu bëggee combat bi Pikine nañ ko def seen koñ. xamoo yoonu Pikine sax ba ma fay fekk yoonu Pikine xamoo ko ba ma fay fekk. yoonu Pikine nga xamul ba ma fay fekk man ñoom sax parce que parce ñu ko dégg muy naan maa ngi recevoir foofu laa koy fekk du ma ko dal. <laughs> waaw am na duraane mooy recevoir ndax foofu Pikine la waaw moomuñu ko mais Pikine la dëkkuwaayam la mais dëkkuwaayam la si jëm boppam mais stade moomu ko mais dëkkuwaayam la duuma la daan la a Pikine nag ak moo neexoon laa mu nekk seen buntu kër ñoom ñoom ñoom leen ñoo tënkit lu tax ñëwul ñëw tënkee yow ñëw ñëw ñëw ñëw tënkee day fee. waaw ñëw tënkee day fee. la moo ñuy teree ñëw tënkee. la moo ñuy teree ñëw tënkee jaww. dañuy bañ ngeen dugal leen ba. mais du ñëw foofu. Pikine fu mu dem day bokk. non non. Pikine fu mu dem day bokk. duma la tegal lu metti boo xeexee ma duma la. boo bëree ma jàngal la. Eh, waxu duma mënu ko jàngal bëre. non doo soq gàmmu gay mënu ko jàngal bëre. non maa dàq bëre ñaata nit la dugal top 5. maa dàq bëre soq ñaata nit la dugal top 5. top 5 lan la. la du ah. bëre. jëlu bu rëy mooy top 5. bu du bis kaw suuf. bu muy daan Youssou Ndour bu muy daan Youssou Ndour lébu bi nan la ko def. mais est-ce que loolu est-ce que loolu est yooyu est dina ko mën a def soo gàmmu gay ndax gàmmu gay booy xool moo xaw a su tuuti kii du soq est-ce que dina mën a zongale gàmmu gay bañ a ka gàmmu gay gis nga gàmmu gay soq liggéey na non man est-ce gis nga gàmmu gay laa wax soq mobile soq mobile gis nga mobile nu mu toll non combat bu dafa yomb daa yomb li tax nga ne dafa yomb xanaa du làmb non combat boobu dafa yomb xanaa du làmb non bu mu wax mobile bu mu wax mobile combat boobu mobile daa ñëw mobile daa ñëw ci biir stade bi xam nga delloo avance bi bu mu wax mobile delloo avance bi te xam nga ne sook saay saay la xam nga ne sook du ragal non non mobile moom dafa ñëw ba ci làmb ji delloo avance bi bu ma wax mobile wax ma wax ma wax ma ci gàmmu géey est-ce que gàmmu géey lu raw loolu mun na ko def ay zongale yooyu noonu sook lu raw loolu mun na ko def gàmmu géey ñu naan Gamou Gueye dafa ki ngay bëree li mu toll wala ki ngay bëree day attaqué ndax mës nañ gis benn combat Gamou Gueye Gamou Gueye jël tànkam bi arrêté si ginnaaw Gamou Gueye ba arbitre sifflé sa kaw jàppal daal la combat bi li wax ji di bëri yëpp bu arbitre sifflé damay tibb suuf jiw samay loxo fekk fa mu nekk duma soq woyu na de waaye yow man wax ak a neex soq woyu na de wax am nga soq nag a wax communication bi <laughs> communication boo xoolee moom mais est du tamit communication bi est-ce du am lu mu def seen làmb seen diggante ak moom loolu parce que tamit des fois nga communiqué communiqué boo xamante ni waa ji mën na amoon ne lii laay def mais day ñëw ba ci digg mu xaw a boppam ne comme que kii wax na lii naa ko déglu non gàmmu nag ku xam gàmmu topp gàmmu gay gàmmu mooy commencement am ba fi mu mhm. toll nii moom ay waxam bariwul quoi noonu la mel mais bu arbitre sifflé mooy diriger moom ah. loolu lay dund quoi moom wax ji bariwul mais bu arbitre sifflé mooy diriger mooy diriger làmb ji yow soo ko la ay waxam bari quoi ma koy bàyyi wax bu ko neex bu arbitre sifflé maa n diriger làmb ji gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo comme ni mu leen ko waxee rek làmb joo xamante ni nii ñëwagul wala làmb joo xam xamante ñoo ngi koy waaj ñu dal fi ñaari supporters yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñooy ànd ak mbër mi wala ñaar ñi nga xamante jege nañ mbër mi ñu toog waxtaane làmb ji gis ngeen ni lañ koy defee demoon nañ nag jëli ay entraînement waaye kii di entraînement wu Gamou Gueye jotuñu koo am parce que Gamou Gueye ku ne xam ne ni moo ngi làqatu buggulu feeñ moo tax it kii di soq jot nañ am ci moom ay vidéo yoo xamante ni gis nañ ko fa muy entraîné ñu dem xooli loolu te ñëw mbokk yi gis ngeen loolu leen bëggoon woon ci ki nga xamante ni mooy entraînement soq gannaaw gàmmu gi ñoo am ay ay bërëm dafa xaw a jafe gis nañ entraînement soq yi noo gisee état dafa mu soq. macha allah wax dëgg yàlla euh, man bu ma gisee affaire bi léegi yàlla xam ni euh, damaa kontaan quoi. Mhm. parce que xale bu nekk ci làmb liggéey nii nga nii nii comportement nii la war a mel quoi mooy bu ñu la a gis nekkat mhm. bu baax a baax a baax. lan moo la kontaan lool soq nekkul sa mbër nga gis entraînement am kontaan. waaw. loolu laa ci bëgg. loolu laa ci bëgg mu ànd état de forme bu normal. loolu mu toll noonu waaw ndax gën yokk waaw na liggéey bu baax a baax a baax. mais est-ce bu ko yokkee dina la arranger. non loolu laa man lu mu gën a diis gën ma lu mu gën a diis ñëw taxaw samp. non xam nga xam xam xam nga combat bi nag euh, dafa taxaw rek ñëpp ne soxu moo man soxu mooy favori. mais est loolu amul tamit. waaw loolu moo ma neex nag loolu moo ñu ci gën a neex. ñu ne soq mooy favori soq moo mën gàmmu gay waaw booy dem ci booy dem ci gerte ñu naan dañ laa mën. Mm-hmm. da lay mu jaral la quoi gare sa bopp loolu moo ñu ci neex ni mu toll nii moom dëgg yàlla bu ci wàññi dara ndax gën a yokk. noo gisee état de forme soq. waaw. daal na sa xel quoi. par rapport sama xel bu baax. ama soq xale la. dafa mm-hmm. nekk du yoon tamit. xam mm-hmm. nga luy nelaw nga bu ko yee tamit. amaana si yeewoo gëm naa ni nga lor sa bopp de. lii muy wax ni da cee kontaan ni du arrangement am. <laughs> du arrangement am de <laughs> lu leer laa lay wax. nga gën a ngënd rek. kamaloo soq borom borom jabar la. ku la ko loo xam man man man fii dama ñëw de. da ngay dem bi Pikine. non xam naa ko bu baax fi mu dëkkoon noonu sax foofu xam naa ko de. dafa toxu léegi. fi mu taxawoon noonu. Ah. xam naa ko. waaw da nga fa daan dem. <laughs> damay ñëw Pikine. mooy dul gars yi xàmmee la de. yàlla xam na ko man nag euh, yàlla xam na ko. Mhm. non yaa ngi wax de man ma gars yi xàmmee tamit. Mhm. làmb léegi romb na làmb léegi romb uh-huh. soo ko korog bi ndeysaan ba bi mhm. de korog bi ba fay laa ko ñëw na fa ñëw nañu ok loolu loolu loolu làmb romb na loolu léegi quoi. Mm-hmm. dëgg korog bi bi bi Zilbal lay gaañoo wax maa xam waxtaan nañu ba sax maa xam yàlla xam na ko korog ba ma ñëwee maa xam ñoo toog ba ma ñibbi maa ngi koy tàggoo maa ngi gisoon nag mbër maa ngi dem ak yooyu xam nga te xam na ne kii nitu gàmmu gay la quoi waaw ñu gars yi fa nekkoon xam nañ kii dëgg la dëkk mais léegi làmb romb na foofu quoi làmb romb na foofu quoi làmb romb na foofu mais xam nañ ko bu baax a baax waaye ñuy bëri xam nañ ko bu baax parce que euh, cinq ans xamoon nañu dañuy bëri ak moom non mais attends. lu nga wax garaaw na de. attends cinq ans xamoon ngeen da ngeen di bëri ak moom promoteur bi da woon wax ko dinaa tëgg wala naka la demee. non non sama combat ak moom la nag a bëri ci mais après la desoon yéen a bañoon wala moom moo nangu woon jël avance. non boobu moom soo gisee nu mu waxee war ngaa xam ne ñoom ñoo bañoon. non non boobu moom moo xooloon ne bàyyi na fi gàmmu koy quoi. <laughs> xam nga ñoom gars yi nag. da koo dépassé woon quoi mooy mais nag làmb ji naa la wax benn affaire de xale yi mu duma naa dafa bëri ay tàppet moom si la bokk kan moo ci bokk yow yaa ko wax de yow yaa ko sañ a wax de <laughs> non yow yaa ko man dama ne làmb ji na ay tàppet yow yaa wax yaa wax soox si la bokk ñoom dafa jël taxaw ñu ne combat di ak di taxaw mhm. avant làmb ji ñëw nga moo la firnde ne soox si tàppet la bokk yow parce que combat yi mu jël ay combat tapet la li man combat am jël yoo xam ne ay combat jël. non c'est que bëgg ma xam bëgg ma. non waxal rek combat la moo gàmmu. waxal gi. waaw ah. non combat mi na mooy ki dëkk grand Nandi Fall kan moo gën a doon champion. non Nandi Fall moom état de forme bi bu fekkee waxante nañu dëgg rek man li mu leen wax du du dañ. bu fekkee waxante nañu dëgg gàmmu gi moom man bi kii kon Nandi Fall bi mu sumee ko moom soq man xam naa ne soq daal man. man dafa am si làmb moom laay wax chaque jour comme ni ma koy waxee làmb amul cinquante cinquante làmb am na soixante pour cent quarante pour cent làmb am na soixante dix pour cent trente pour cent yaa ngi dégg yow keroog bi nga demee stade soq simee ko Dande Fall simee ko xam nga ne soq moomoon mais est-ce que bu gàmmu gay simee ko soq simee ko est-ce que la nga gisoo ci combat di nga ko gis. lu raw loolu laay gisaat lu raw loolu laay gisaat. la moo tax ngeen ngeen confiant bu mu ëpp ci seen i mbër. waaw di nga ànd ak sa mbër tamit di perte confiance ci fois mu am. man de yóbbu naa mbër xam na dañ koy daan. man de bokkuma si moom <laughs> bu dëgg neexee yàlla rek soo ko mosuma ko yóbbu làmb am lu may sikk. sax man kaw bi may seetaan kaw bi may ak Zos. maa xam ne Zos abi sifle moo moo tee ñu jëlee ko fi. waa loolu mën la. mën yow kese de. waaw léegi nag moo tax ma ne làmb ji est du ngeen dem ba ci làmb ja nga si kii si meeku si meeku nga ne tey kat sama avance est-ce ko yóbbuwaat. jamais xalaatuma ko sax. yéen a ngi ci wàccaay parce que gisoon nañ comme comme combat bi desoon na benn fan jotoon ngeen a jënd ay billets yéen ñi nga xamante yéen ñi nga xam ne yéen ak mbër am Pikine sax am mhm. di seen mais non maire yi moom mooy loolu jàpp ci. ba li nga wax. bat yàlla moo tax est-ce que xam nga ne maire bi danañ fa teg pour jeunesse bi amul lépp def nañ ci. xam naa bu ñëwaatee booy booy dañuy jaay suñu ay jaay suñu alal yoonu jaay suñu ay lal. mbala ngeen ket. waaw non dañu loolu dañ koy def parce que xam nga jàppale moom demewul noonu tënkee quoi wax dëgg yàlla préparé wu nañ ko. mais lancé ko appel fii xam nga mairie yi dañ leen fay teg pour jeunesse bi. Mm. jeunesse bi war nañoo am lu ñu bëgg dem ci mairie bi ne ko nangam la ñu bëgg te dañ cee war a taxaw par force Tëngéej bu dire la vérité Tëngéej man maire yi nekk Tëngéej amuñu benn njëriñ ba baatu seen bopp lañ fa nekkal. waaw ñoom xëy na ah, bu fekkee dafa am lu ñuy def fen lañ koy def mais def ñu ko ci biir làmb jàppalewuñu boy yi jàppalewuñu boy yi déjà euh, papier da rek bëgg mu ji mais papier da rek bi gis na bi gis na bi mu làqoo. Mhm. ba bàyyi hôpital boru 1 million 200. gars yi ñuy dëbb dëbb xaw ma fay nañ xaw ko maire yi amul benn njëriñ. moo tax ñun combat bi wax dëgg yàlla day métti ci ñun trop parce que préparé woon nañ ko ndax li ñu amoon lépp def nañ ko ci yàlla xam ñëw ko ne suuba la làmb ji antu amul mais loolu nag dañu koy sant suñu boroom xam ne suñu borom la quoi. Mhm. mais waa ji waa ji waa ji am na sens. <laughs> non Korok la maam loolu Pikine wala seen àdduna naroon a gis lu doy ba dafa am lu ngan ne lu ngeen waajoon pour soq. kii am na sens. juróom la àdduna doon jàpp sook àdduna juróom lañu waroon jàpp. dama koy dama koy soo duggoon arène nationale. dama koy bëriloo xam nga moom sox moom. sox <laughs> moom moom moom deux minutes moo tax boo moo tax boo ñëw sa kaw maam ma sa kaw parce que moom condition bi bëriwul. sox li nga seetaan fii léegi li mu actif nga ne condition bëriwul. <laughs> mais mais des fois caméra yi tiim na nii ngay gisoo noonu affaire day góorgóorlu. bu ñu xoolee combat moom day fatigué. ay combat bu yàggee léegi da ngay gis pratiquement ci moom. day sonn mais da ngaa mos a seetaan combat soq bu yàgg. nga xool ni kii dafa fatigué. non day bàyyi soq day bàyyi soq ñu seen ay combat day bàyyi. déggoo kii li mu wax nee na daf leen xam bu baax. mais ñun duñ ko sax xaar ñoo xam. iso mën ñoo xaar mën ñoo xam de. dama koy mu nekk jàpp ko daan parce que gàmmu gay wax naa ko gàmmu Euh, tey booy yi nekk ci làmb ji. soo ko fekkee soo ko fekkee tam daj lu metti rek. ay moroomam gàmmu koy moo ci gën a mooy mooy ki ci gën a baax palmarès. arbitre siffle nga ne bërëb daw si kaw soox benn mag a nangam nangam. daan mag soox. non ñii ay la ñuy daan. ñoom waaw li mal mbër yu parewul da ngay lim <laughs> léegi rek quoi ak ay gars yoo xam ah, kii moo dégg sax mun naa ay ndigal saako ay ndigal mais ndigal gars yi bëri ah, ndigal de kenn déggatu ko ci ah, laa moom eh, par ndigal bu mu siy toll muy nekk si digg for moom si jëm boppam. Ah. digg ndëndam. dañ ko jox soq ñëpp di naan ndigal. géej waay yëpp di naan soqu ndigal. mooy boobu mu ñëwee nu mu def. mooy boobu bi immobile <laughs> ah, laa bëggal sama yaay. non soxu taayee la woon. ba léegi la doon la immobile ba léegi ba léegi. <laughs> sooxu bii soobu maan la. soobu turu soobu la laa neex quoi yow soobu maan la. Ibrahima soobu maan la sooxu bi day xaju rek maam bu waxee nag danga naan kii mooy loolu boo ko déggee mu naan ay damay sóor ay ñaar dugub xam nga ñaar kilo dugub. waaw ndax gàmmu ko yow ay dugub koo ko sooke wal ko. loolu ci tey ko du la ko moom tey ko moom du la jaaxal. waaye ji laa ba du siflee laa man li ma ko mooy ba du siflee mu nekk laa koy fekk jàpp ko daan ko yow yaay wax de ba léegi yaay wax ci wàllu làmb ak ay moroom gàmm gi ay combat yu métti yu bëri Gamou Gueye mënul def lu Sokh deful si làmb. mënul def lu Sokh deful du làmb. Gamou Gueye du la waroon bëre. la waroon bëre yow. non Gamou Gueye gars yi yow sens contraire bi ngay wax yow. mais mais mais Sokh moom dafa bokk sa yoon. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo làmb ci jàmmaarloo ak ak wasaare làmb looy tàggatoo kàddu yu mujj. sama waa ji ngi may signal ne temps a baax a baax. parce que moom mooy moom mooy baax a baax. xam a débuté Badou Mbaye bu gàmmu gay la woon sax quoi. parce que dañ dem ba benn sens leneen boo suñu ginnaaw muy tëngëj. moom tëngëj yëpp lay teewal. bu subaa bu fekkee dañu si os doomu dàmbu damay ñëw bu ñu si obee keneen damay ñëw parce que tëngëj yëpp lay teewal mais maa ngi gërëm ñëpp dëgg yàlla di gërëm waa wasaare mm-hmm. parce que am na foofu fekk làmb te am na foofu ko yóbbu man was man wasaare koy cons parce que wax dëgg yàlla li nga bëgg gis si làmb dëgg-dëgg moom lañ lay wan dëgg la maa ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu sox moom bu baax ah mm-hmm. moom it baax la euh, di nuyu waaye suul suulu soox suul bi soob man la xam nga di nuyu waa Pikine yi nekk Pikine ñoom Issa Oumou Sène ak gars ñëpp mooy loolu daal si gërëm ñëpp di nuyu waa Tëngéej bu baax a baax a baax Euh, di ñaan yàlla mi nga xam ne moo am ndam. Mhm. yàlla yàlla may dam ci kaw sox ma jàpp ko tànk parce que man dama war a am ci kër yu gàmmu gi dafa ci kër yu baax yi am ci oto yu baax yi te ñun fi ñu xam ne dafa xaw a métti. Mhm. suñu yaay bëgg a teral waaw moo tax ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ndam waaw ñu dem ba ci kanam kanam kanam. kàddu yu mujj yi suul. waaw kàddu yu mujj yi waaw di dool waa di santaat yàlla rek gërëm suñu borom bu baax a baax di ne waa soxor seen doom la waa ginaaraay waxi noppi sama gars yu ma àndal ku si mel ni papa Ahmed Falaye nuyu mafia sook bi yëpp. Mm. mafia soox bi yëpp bàyyi ma kenn ba tali bees ginaaraay Massa Waranka yaakaar jokkoo jàmmoo fu mu sooke ko fépp mango ji tamit di nga naan mbër gars yi ñoom sa ginnaaw à chaque fois lépp loo doon def benn def ko fukk te gëm naa ne tey la waalo gën a aay comme nu mu ko doon waxee rek. daa ñoo xam ne ñoo yaakaar si yow à chaque fois dama la wax nga bàyyi loolu xel bu baax te làmb yow da nga am cër man gëm naa ne yow Sokh làmb moo lay fay yàlla suñu borom mooteel lépp ci barki Seydina Mohamed. gis ngeen noonu lay demee ak wasaare làmb li mu leen wax chaque jour ak ki naan saam ñaata ak ki naan benn ñaata du yem. Wassare Lamb dafa ñëw ne saam ñaata moo tax nii la leen koy defalee beneen yoon dina fi dalal ñeneen ñi nga xamante nii dañoo bokk ci làmb du ma fi jóge nag te nuyul ma Matar Fall Matar Fall mi nga xamante ni moom ma yombalal affaire yépp maa ngi koy bu baax a baax waaw ah, ah, jeexala ko waaw Matar Fall tam sama gaay borom cuuxu cuuxu maa ngi lay ziar di sant tam waa néeg ba ma fi ñoom Christophe ñoom Lamine Jabaate ah ñoom Tafa Sine Ousse Noreyni mafia bi yëpp su ma limee damay juum sa kàddu bu ma dégg noonu de. Baadu du waxaat lépp yow. yow <laughs> doo fi waxaat de noonu lay demee. moom mii daa war a ñëw ñu sëgg bëre maa moom balaa ñëw génn fii dafa war a leer. ñeme de lu ñu dawee sonko sax ñu baa li nga wax la dëggu dëggu liir yooyu nekk seen biir bu ñu fayee dañuy rayante mo songé mu defal mu ne tur de mbaaru mbaaru waxu jàmbur yooyu noonu bu ne tur ma fi yaa mbéte bu nee bi daa diis de saaku mag bi gis ngeen noonu lay def noonu lay ñuy tàggatu ba beneen yoon incha allah kàggu maa ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm sama cameraman bii di aadama lu ngeen deful baaxul ba beneen yoon ci jàmmaarloo ak Wassare Lamb yaa jëf